léegi beneen point bi ñu wéy ci waxtaan bi mooy mbiri Juan Branco doon mbir moo xam ne mu ma intéressé la benn di féliciter Juan di ko encourager di ko ñaanal mu wér parce que mars deux mille vingt et ak tey jii juróom fukki nit faatu ci réew mi ay nit bëgg a jóge fee naan ay force obscure ak force occulte lu ne ñu wax la ko ci ñoo xam ne tey ji ñun soxlawuñ woon ñu ñëw duñu wax mais dañuy ñëw def enquête enquête bi ñu jox ko temps parce que Juan wax na ko tey nee na enquête yi ñuy def sax ak dossiers yi mu jël ni dossiers yooyu mën na jël temps parce que du loo xam ne dañ koy pata patamee parce que tubaab danoo gëm justice ba danoo jàpp di daa am yoo xam ne kenn du ko gaawantu léegi nag Juan jël dossiers yooyu ne da ko yóbbu ci tribunaux français yi mais aussi cour pénale internationale parce que juróom fukki nit mënuñu faat ci réew ñu bari am ci ay gaañu gaañu léegi nguur gi bëgg ñu gëmal ni moom dina ci enquête di nga enquête bi nguur gi génn korog conférence de presse bi ñu def korog maa ngi koy wax ci tàkku show defuñu ko pour ñun mais dañ koy def pour wax ak waa bitim réew pour xamal leen ni lii la parce que li jëm ci mbiri enquête yooyu bu dee nii xam enquête yooyu nan nga ko mën a suulee maanaam yi am cour pénal ak yooyu mooy boo xasee ba ibbi enquête sa réew rek. comme li xew Sénégal ñu commencé enquête fii ne ibbi nañ enquête rek day tax waa cour pénale du mën a def seen liggéey fekk enquête bi jeexul kon ñoom lu mu gën a yéex mais xuwaan comprendre na leen mu ngi naan leen affaire yi mën na yàgg mën na jël temps kon jaru yàkkamti sàcc bu dul rëcc jaruta yàq nalaw mu jëmee ko ci président de la république jëmee ko ci général Moussa Fall mais jëmee ko ci Antoine pour le cas de Antoine di ñu intéressé mooy le ministre de l'intérieur mais fii ministre de l'intérieur bu ne am na fi gis nañu euh, Mbaye Ndiaye nekk def ministre de l'intérieur ci jamonoy yi gis nañu euh, le général Pathé Seck ah, waa yaakaar naa y'a aussi Abdoulaye Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye Antoine bi mu nekkee ministre de l'intérieur ak tey ji ci ñaari at lay toll mais ñaari at wala ñetti at yooyu wala jege na ñetti at mais ñaari at la mais boo jàngatee. ni bu nu lu jege ci juróom fukki nit ñàkk nañ seen bakkan ci ay manifestation ci ay defante kenn waxul diw moo leen faat wala kee mais nag loolu lu ñu waral leeral la parce que Sénégal nit ñi duñu ay weñ ba heure bu ñu xëy rek di faatu bu faatoo rek ñu jël lépp teg na le ñëw gëmloo ñu force occulte obscure wala leneen ak leneen fi lañ fi waxoon mars 2021 ni ibbi nañ ab commission d'enquête maître Sidiki Kaba ñëw gëmal ñu ko mais commission boobu ba tey jii gisuñu benn jéego bu mu def pour leeral mars deux mille vingt et ña faatu woon tey jii lu toll ci fanweeri nit faatuwaat mais loolu duñ ko bàyyi parce que adduna bi tollootul fi ngay tëjee sa réew di def lu la neex te nag tombe moo waral ay gaaf kon tey jii ñi ngi ciy tudd il faut que ñu tudd leen ci ndax ci seen jamono la lii xewee léegi nag ñi ngi naan force occulte wala ñu naan ay opposants yoo xam ne ñoo jugee. recruter ay mercenaires wala le mais loolu ñun xamuñu ci dara xamuñu ko rey xamuñu ko santaane mais liy xawaan def lu tax mu am solo mooy bu ñu demee ba egg ci enquête internationale boobu mais enquête boobu mooy wan ne ni ñii ñoo def lii ñii ñoo santaane li ngir bu ëllëgee buñ falee ñeneen xamal lii lu tax mu am solo mooy buñ falee ñeneen ñeneen ñooñ duñ sañ a def lu leen neex parce que Sénégal li ko yàq mooy impunité da ngay def lu la neex wax li la neex ba génn ci mais loolu mënatul am kon dañuy féliciter Antoine kii di Juan di ko féliciter bu baax a baax taxawaay bi mu am am solo Sénégal yëpp ànd ci moom parce que sànq maa ngi dégg ko di ko wax mais mu am solo parce que dossier yi ñu ko jox sakkan na bari na mais dafa def tri tri tri ci dossier yooyu tri boobu mu def nag moo ko may mu dem ba am quatre cent sept lu toll ci sept cent ay éléments éléments yooyu mu fa yéene ko yóbbu ci yoon ngir ñu càmbar ko topp ko ngir xool fan la wànnent di mujj ak i gëtam parce que dafay yomb lu xew rek jàll ci réew mi lu xew rek jàll lu xew rek jàll kenn du lijjanti lan moo xew maanaam yow boo jiitee da ngay jàpp ni buur nga parce que da nga jàpp ni yaa yor takk der yi yaa yor police yaa yor gendarmerie mais yaa yor justice ba sax da nga gëm ni fi nga ko war a xooloo lay xool léegi nag li xawaan def dañ koy rafetlu mais dañ ci am gàcce ndaxte bu doon suñ justice su réew mi ngi def li mu war a def di topp dossier yi mais aussi tamit di ci taxaw nu mu war a taxawee soxlawul un Juan Branco di jugee bitim réew ñëw di dugg ci loo xam ne mbiri Sénégal la mais nag comme pexe amul moo tax ñu mën a jàpp ci ki mel ne xuwaan parce que fii am nañ fi ay avocats yu baax ay maître Assane Dioma Ndiaye xam nañ fi ay maître Boucounta Diallo Sénégal dafa bëri ay kàngam ay maître Mame Adama géey ñoo xam ne ci wàllu droit de ba ci maître Sidiki kabaa bi jiite fi FIDH jiite fi kuréel yu bari tey jii adduna fu yu mel ni mësaana xew lu xuwaan mii di def moom moom la doon def parce que tey jii dafa nekk ci système bi moo tax kenn mënatu ko dégg ci lu mel noonu mais kenn mënatu ko gis ba mu sax moom mën a toog moom di défendre gouvernement Sénégal ci loo xam ne salfaañe la ci àq ak fi doomi aadama conviction ak principe yi mu amoon démb yëpp moo metti ci kawa mu dem jël ko feneen ku wàcc sa ànd nag ànd boo dem fekk boroom toog fa léegi nag ñàkk a def seen liggéey ñoom moo indi ku mel ne Juan Branco mën a ñëw taxaw Juan li mu wax lu tax mu am solo mu ne du politique amul benn agenda électoral moom wala nit ki muy jàppale pour mu falu wala du fale mais daf am ay mbir yoo xam ne ay principe la ci àddina wax bi mu wax nag bu am solo mooy lépp da ko delloo sénégalais yi da ko delloo sénégalais yi mooy sénégalais yi yéen seen destin ak li ngeen bëgg parce que li may def man mën naa am mën naa am yéene def ko xwan loolu la wax mais il faut que sénégalais yi jàpp ci taxaw ci jàppale ko ci ngir lii mun a mat te jàppale mënta weesu ba mu ne yónnee leen ma ay éléments ñu yónnee ko ay éléments éléments yoo tey bi mu ci jotee la xëy def lii mais ëllëg on dafa soxla ay témoins ay témoins yoo xam ne dañuy témoigner contre ñi mu def plainte bi nii ngir ñu mën a leeral mbir mi parce que li amoon du amaat loolu Macky Sall da koy wax te man gëm naa ko mais ñu liñ bëgg mooy li amoon du amaat mooy bëggatu nu manifestation boo xam ne dañuy faat ay nit bëggatunu manifestation boo xam ne dañuy jàpp ay nit tëj ci kaso bi te teguñu ko fenn bëggatunu ay nit ñuy manifester ñu gis ay milice wala ay nervi yu yor ngànnaay ba police di ñu wan vidéo di ñu joxoñ naan waajaa ngi ne le te waroon ko dem jàppi yooyu mënatul ne kon tey jii tëju ci sa dëkk di def lu la neex loolu nax sa bopp la di nga xwaan nee na lu tax euh, waxul sax ci Antoine wala kii di Moussa Fall wala Macky Sall waaye dem na ba ne génocide bu Rwanda génocide bi amoon Rwanda maanaam bari na ci ñoo xam ne sax tey jii ñu ngi leen topp ci yoon du question danoo rayon de mais kàddu yéen doon yëkkati ba tudd rajo Milkoline mu ne kàddu yéen doon yëkkati di puus nit ñi ngir ñuy faat te fii dégg nañ fi président da da ngaa war a rey buur day rey di tëj gis nañ fi bu quatre-vingt-dix pour cent sénégalais yi deewoon buñ deewee tamit te te buñ deewee di pour cent yi des garaawul pour ñu mën a régler affaire Sonko yooyu yëpp dégg nañ ko dégg nañ fi ay mbir yi nanu faat Sonko yooyu yëpp dégg nañ ko ji nga ne xeetu kàddu yooyu xuwaan sax nee na ñooñu doon wax kàddu yooyu. xam na ñooñu wàcc ñu ci terrain bi xeex waaye ñooñu ëllëg sax mën na leen topp ci wàllu yoon kon tey ji bu dee ñàkk xam moo leen jaraloon di wax yenn wax yi tey jii xuwaan xamal na leen te lii lu ñu war a topp la ba mu sës leeral ko ba mu leer pour que ëllëg lu amoon du amati même bu dul nguuru Macky sàll nguur gu fi mën a nekkaat nguur gu fi mën a jaaraat doo fi ñëwati di def lu la neex pour pourquoi nguuru Abdoulaye Wade am na lu fi xewoon ba 11 morts am en 2011 mais am na ay atte Mamadou Diop atte bi baax na baaxul mu umay au moins état Sénégal fexe na ba mu am procès procès Mamadou Diop am na fi gis nañ fi ay étudiants yu faatoon am na procès mais pourquoi ak régime bi ay nit di faatu kenn du ci maanaam du mujj fenn loolu problème la jamono ji ngay bañ a doo leen sax jaale doo leen sax masawu dem bitim réew di jaale ji lu ne nga dugg ci loolu la Juan Branco nee na loolu day dakk te yi. ñoo ko ci mën a jàppale comme da doon wax tubaab il fallait que ma leeral waxi xuwaan te nag nee na politique tax ko jóg nekkul ci benn agenda électoral mais lii xew senegal il faut ñu am courage taxaw jéebaane Sénégal jéebaane suñu njiit yi ngir que lii bañ a amati.